station yi bu dëkkul ñu wax suñu réew na Sénégal benn réew la kenn mënu koo xar ñaar libanais syrien ñëpp dañu nañu tey ñu ngi taxawlu coordonne travaux Lura Hawaï bi di ñaan Lura pour les relations diplomatiques ak Israël expulser l'ambassade yàlla jàppale ñu bu baax ci loolu